candidat déclaré Aliou Sarr on a pratiquement des lien familiaux familiaux de sang sunu Thiès ñun sunu kër ba ñu ñëwee ak seen kër moom am na maamam rakku maamam bu tudd Samba Dia mooy sam maam donc je te une chose Alioune on a été au gouvernement pendant tout le temps te nee naa lay famille mais musuma dégg mu ne candidat candidat la ba mu génnee am problème ak AFP mu génn nekkatul gouvernement ñu jox keneen mais c'est quelqu'un qui a été dix ans plus de dix ans dans le gouvernement de Macky Sall. eh. non j'ai dix ans dans le gouvernement de Macky Sall on l'a jamais entendu parler sur la candidature ni en public ni en privé il a des problèmes avec l'AFP aujourd'hui peut-être il n'est plus dans le gouvernement non ces gens-là man ni ma leen di analyser li ma leen di juger au-delà de tout ce qui nous lie nan laa leen di juger. Hmm. cela veut dire que fayuñu naar bi.